ay ca mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Leewtoo TV ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di kontaan ci yéen di nuyu axlu làmb yépp wante di jaale suñu papa nekkoon suñu xarit di père Gaston di ko ñaanal suñu borom yóbbu ko ci àjjanaam yu kawe nekkoon ka nga xamante ne bii kenn la woon ci làmb mun naa ne làmb bu see fii tey loxom mi ngi ci biir kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom teelu teeru kook malaaka yërmande yiir ko malaanu ma yërmande ci barki sanku sanku yi tey nag ñu seet si benn promoteur ba nga xamante ne bi nee naa leen promoteur bi ma seet si moo njëkk a tuddee Ousmane Sonko làmb 2020 boobu Ousmane Sonko mu ngi mu ngi mu ngi ci opposition bi mu tuddee ko làmb ba yàlla dogal tey ñoom ñu nekk ci pouvoir bi ñu war a waxtaan ak moom ci digganteem ak Ousmane Sonko nan la def ba xamante ak Ousmane Sonko ba koy tuddee làmb lan moo dox digganteem ak Ousmane Sonko ba koy tuddee làmb loolu ci kanam tuuti daanu ci waxtaan ak kàddu yi nga xamante ne bii biram Souleye Diop yëkkati na ko jëmale ko ci làmb te moom mu nekk patriote loolu tamit danañ ci waxtaan ak moom muy Thiolla production Ahmed Thiolla ma bàyyi la nga nuyu. waaw salaamaaleykum wa mbay Mbaye Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar bu nu sante yàlla bu baax a baax nag ah, sant sunu waajur di leen ñaanal yàlla yërëm leen atte leen di nuyu. axlu làmb waaye nag du nuyu waa Jurbel muy Jurbel ga ma dëkk njaareem nuyoo bi fa lay jiitu di ziar sama sëriñ sëriñ Laat Cissé bu sëriñ Mor Mbay siise di ziar waa kër sëriñ bay Sarr rawatina xalifa ba di sëñ Ismaïla Sarr di ziar sëñ euh, Sibéeru Sarr ak képp rek ki nga xamante ni nekk nga kilifa njaareem ñu ngi lay nuyu ci wàllu pàcc yëpp di la ziar wax dëgg yàlla Mbaye Babacar gannaaw loolu nag fii nga ma fekk tey di sama bërëbu liggéeyukaay fii si Dakar fii di si Mbaaw di nuyu aussi sama dëkkandoo yi fi yi ma fi nekkal muy sama xarit bi Bas Thiam ak waa zone bi yëpp tôlier yi fi nekk Baye Baba Diawo ak maire bi nekk yor restaurant bi dend ak man euh, maire Sène ak Saliou mii nga xamante ni moom it tëkkatu làmb la moom làmb simple la daan tëgg ferrailleur bi moom it maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar mbay baa ko ñu ngi lay nuyu di la ziar di sant yàlla bu baax a baax. Hmm. wax naa ko sànq ci introduction bi yaa njëkk a tuddee Ousmane Sonko làmb en 2020 sa diggante ak Ousmane Sonko lan la. waaw laaj nga ma question bi nga xamante ni euh, neex na ma Mbaye Babacar ndax su ma digganteeg Ousmane Sonko cofeel la. waaye dafa am lu ko lu jiitu cofeel bi mooy dëgg bum ñu jàngal wan ñu ko wan ñu ne politik bonul def defin bi parfois mooy ban mooy bon moom daf ñu jàngal politique ba nga xamante ni doo soxla ci leader bi dara yow yaay yëkkati di defal leader bi ngir bu ëllëgee moom bu jotee liñ koy liñ koy defal maanaam réew mi tax ngeen di xeex bu si jotee mu xam ne kat nit ñi àndee wuñu noonu ak moom ak intérêt loolu moo ma gën a neex si Ousmane Sonko te jàngal nañu bëgg suñu réew ndax wax dëgg yàlla man mii di wax ak yow de euh, bëgg naa suma réew mu yi Sénégal gëm naa ko mais Ousmane Sonko dafa tax ma gën ko bëgg ndax xam nga lu tax euh, bu njëkk ñun boo ñu daan wax waxu politique sax dañ lay sànni loxo. wala élection mooy ñëw mooy tax nga gis ñu ci yenn yi te pourtant dafa nekk yoon ba nga xamante ni citoyen bu nekk war nga mën a gëm sa réew citoyen bu nekk lépp lu sa réew di def war nga ci mën a participer Ousmane Sonko nag <laughs> moo tax ñun amuñu fayam ndax dafa tax ñu mën di participer sunu réew gën a bëgg sunu réew fu ma mën a dem ci àdduna bu ma fa amee weer day mel ni dama fa am ay junni at Sénégal ma dàqal fu ma mën a nekk moo kon jàmmi Sénégal rek la ñuy wër te ñun xam nañ ni Ousmane Sonko jàmmi Sénégal rek lay wër te moo ko gënal lu mën a am looloo tax ñu bëgg ko. looloo tax nga bëgg ko mais jamono yi nga koy tuddee la en 2020 mu nekkoon boobu jamono boobu metti trop euh, ba yàlla dogal tey. mu nekk ci pouvoir bi jamono yi koy tuddee làmb mu ngi doon yëg ne yaa ngi koy tuddee làmb yéen a ngi doon gisante waaw wala déet. non Mbaye gis nga Sénégal dafa dafa dafa naqaree waxee moo tax parfois man vision bi ma am ak gëm-gëm bi ma am xëy na peut-être nit ñi amuñu ko ñu bu ñuy tuddee làmb Ousmane Sonko dañoo nekk ci secteuru làmb yàlla nattuñu ñu doon bëree bëreetuñu suñu borom dimbali ñu ñuy dem ak a ñëw liñ as am as néew ci suñu liggéey parfois ñu bàyyi ko. dugal ko ci secteuru làmb tëgg làmb woo xale yi ñu bëree defal ko lépp luñ ci am ñu jox ko suñu waa koñ muy koñ bi nga xamante ni fa laa juddoo fa laa yeroo muy may président AIC ba muy Pape Diouf di quartier Serigne Mbaye Sarr loolu moo ñu dugal ci drapeau tuddee drapeau Ousmane ko mais ak lan lu ko lalu dañu xool ne ñun bëgg nañ Ousmane Sonko mii te Ousmane Sonko mii jaral nañu lu nekk waaye ñun pour ñu def effort faw ñu am la nga xamante ni dinañ ko ko jàppalee te mënuñu ko ko jàppalee lu dul suñu dëkk parce que suñu dëkk gis nañ ne bu ñu nekkoon ñu toog dakaar de wala di dem di rang ci buntu kër Ousmane Sonko ñun soxlawuñu loolu soxlawuñu aussi. mais mais yi nga koy tuddee làmb mu ngi ko yaa ngi ko doon gis jamono. non yàlla xam na ne mosuma ko gis ci jamono boobu. wallahi azim mosuma ko ji si jamono boobu. mais jam mais lu jafe ngay wax promoteur bu jël nit tuddee ko làmb te mënu koo gis te leer na ko tamit bu ko tuddee làmb moom du ñëw du yónnee. du yónnee mais nag dafa am la nga xamante ni dafa gën a foor loolu parce que man bi may tuddee. yow du yónnee du la jox xaalis. non mais dina xam nga ñëw gi mooy lan Ousmane Sonko bu ñëw bu buñ ko tuddee làmb même bu ñëwul parti bi ñëw na. parce que ñun Jurbel lañ dëkk ñëw tiituroo lu dul Jurbel parce boobu Jurbel Pastef bi doole ji des na te bëgg nañ Jurbel Pastef am fa doole. te ñun xam nañ ne Pastef lañ gëm ci diaspora bi ak fu nekk gis nga man président Ousmane Sonko maa ngi njëkk a toog ak moom 2018 Madrid Espagne élection yi muy yi njëkk a def yi amoon 2019 xam nga bi mu campagne dafa def tour Espagne bi tour diaspora bi yëpp yàlla dogal mu ñëw Madrid tombé ma nit ma ñëw Madrid ñu tom ma ci ma dem gars yi ne ma ah tiset kat lii lañ koy jaayee da ngay joxe vingt euros ak ka kii 30 euros man ak sama benn grand Ndiaye ak sama benn grand Cheikh Tidiane maa ngi leen di nuyu à passage ñu dem ci conférence boobu ci laa jëkk a dik man ci laa njëkk a xamee kii nii du nitu nitu nitu nit yooyu di ñëw nii rek di wax rek muy jàll seen i wax di fay si laa ko njëkk a xamee si laa xam ni kii dafa am lu ko yàlla may ndax question yi ko gars yi doon tontu yi ko doon posé mu koy tontu man vraiment. man après dama dépassé ci laa njëkk a découvrir man Ousmane ko kan mooy président Ousmane ko moo tax ku sell ki bi mu ñëwaatee baat boobu man bettu ma parce que mu sell mi man du ma ko bëgg sax di sàlloolu sa mbay boo duggee sama kër moom ngay njëkk a jàkkaar bu may xëyee damay jàkkaarloog moom bu may bala maa tëdd damay jàkkaarloog moom. kon mooy sa sëriñ. Euh, du sama sëriñ sax waaye nag mat na ma sëriñ. yàlla dogal na nag man am naa sëriñ waaye mat na ma ko nag wax dëgg yàlla ndax lim lim lim ñu lim ñu digal mooy li sëriñ di digal taalibeem rek jub wóoral nekk ci ak dëgg jaamu yàlla kon loolu moo tax mbay ñu baree bare man dama leen njëkk a xam Ousmane ko ci xam gi nag soxlawul moom mu may xam man soxlawul mu may xam de mbay man nee naa la eh, yorel naa Ousmane Sonko bor ba nga xamante nii noonu rek laa ko mun a di fayee munuma ma koo fayee leneen mooy tëgg événement dépense ci sama xaalis daj ci lu nekk jël événement bi tuddee ko ko képp ku ñëw ci événement bi xam ne lii drapeau bi kat Ousmane Sonko la kii kat bàyyi di nga yóbbaale image Ousmane Sonko ñun loolu lañ doon def te biñ koy defit wéetuñu ci ndax parti bi Jurbel jàppale nañu ndax doon nañ doon nañ teew ah, maa ngi ci nuyu nag docteur Souleymane bu baax a baax bu commune bu Diourbel communal bu Diourbel ñi mu àndal ñëpp mënuma leen a lim mais ñi nopp ci ginnaawam ba ci jigéen ñi ñoom laa la jaxate ñoom Adja Mbaw kenn daawul des sama jigéen Aminta Aminta Sarr maa ngi koy nuyu madame Dieng ñooñu dañu ñëw doon taxaw ci bis boobu mel ni Ousmane Sonko ñëw na te vidéo yooyu mbay yaa ngi moom bu la neexee nga monter ko teg ko parce que Sénégal lu naqaree waxee la ñoom bu ñu déggee ne yow tuddee nga ni drapeau yaa ngi koy rendre hommage rek wallahi jàpp nañ ne lu dul jeex la war a jox lu dul jeex te mbay yow ñëw ngi suñuy bis ñun ñi ñuy rendre hommage ta nekkuñu fa moo ëpp ndax wax dëgg yàlla ku ku mel ne sunu xarit boobu Abdou Fatah yàlla na ko yàlla yërëm at mu jotoon ñu defal ko rendre hommage Père Baba Thiam waxi nopp Touba Plaque te ñun yooyu wuñ ci dërëm moo tax buñ koy defar Ousmane Sonko dañ ci faire te dañ koy continuer di ko def wallaay xanaa ñu dem ba bàyyi làmb nekkatuñ ci mais fekk ñu ngi nekk acteur di mën a tëgg dañuy tuddee at mu jot drapeau président Ousmane Sonko premier ministre di Sénégal loolu ñu doon ñaanta leneen ak leneen dina ñëwaat ci kanam. léegi nag xam na ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ñoo téye li nga xamante ne bii moom mooy pouvoir bi kenn ku bokk ci ñoom ñu koy wax Birame Souleye Diop di ministre. ñu gis jour korité bi mu jullee ba noppi ñu tàllal ko micro mu ne gouvernement bu bees bi bu leen kenn tuddee làmb bu leen kenn tuddee football bu leen kenn tuddee ngénte bi nga déggee loolu yow en tant que patriote yàgg tuddee Ousmane Sonko làmb naka nga ko dégg dafa juum mbay Biram Souley si ñun la bokk juum du tax ñu wax ko lu ñaaw parce que combat bi métti woon na mu ànd ak ñun di xeex yàlla tey nag def na ko la nga xamante ni mooy ministre ministre nag du lu ndaw parce que sénégalais yi bëri nañ buñ la ci tànnee def la ministre di mine da nga am liggéey bu mat sëkk mu yor pétrole beeg gaz beeg mine bi kooku yow am nga lu la doy sëkk mais nag dafa juum mais tey jii bal kañ la ma doon gën a métti sama sama sama sama sama sama idole sama royukaay di Moussa Balla Fofana wax ko bu Jurbel di suñu idool di suñu roykaay ndax moom moo ñu njëkk ci tukki bàyyi la mu doon def yëpp ci àll bi bàyyi léppam kanada ñëw Sénégal samp dëggal wóoral gëm parti bi ñu proposé ko lu ne mu bañ tey jii kooku su ma dëggoon mu wax loolu ah mbay nag dina am lu mu métti. waaye nag heureuse Birame Birame bi mu ko waxee. xeeboo xam nga lan la ma tuusee tuuti. parce que Pastef dafa am lu mu indil projet Pastef laa laa bëgg a wax dafa am lu mu indil sport dafa am lu mu indil sport xam nga ñun duñ topp duñ topp mbir rek di déedéet ñun dañu topp projet bi projet bi jaral ñu sunu bakkan ñu daan tëj sunuy place di wàcc di ànd ak lépp lu lu parti bi woote ñu nekk ci kon ñun toppuñu ko par hasard heureusement eh, Birame mënoon na wax ci projet bi. li mu indil sport ndax gëm naa ne li mu indil sport làmb da ciy jariñu man gëm naa loolu football da ciy jariñu at at bël da ciy jariñu lépp luy sport Sénégal da ciy jariñu mais heureusement xëy na peut-être que bu laajoon ministre bi nga xamante ni moo yor sport moom dina ci mën a développer parce que ñun loolu dañ ko topp liir ko nee naa la 2018 ba léegi ñu ngi topp président Ousmane Sonko. mais kaddu kàddu yi bi mu jógee ak lu làmb. ku ne xam na ne ku leen gàjji ñu xuri la ak lu làmb ku ci nekk yëkkate na sa kàddu jëmale ay kàddu ci ki nga xamante ne bii mooy ministre bi noo gisee. waaw làmb man am na ci kàddu yam ne nii dégg naa ko waaye rafetluwuma ko parce que euh, lu mu gàtt gàtt dayoo ministre nañ koy jox cër bu am juum nag ndax moom bi muy wax mënoon na wax ne man sama bopp ak dëkk ba muy milité te man sa damaa gëm ne dëkk ba muy milité lay wax. muy waa cees xëy na foofu lay wax mais sama gis-gis laa laa wax moom nag wax na dëgg yàlla bu dee dëgg rek la wax membre de gouvernement bi yëpp la wax waaye ñëpp mënoo leen waxal wax dëgg yàlla ndax gis nga tey jii ñun président Ousmane Sonko bi ñu koy njëkk a tuddee drapeau xam ko ci njëkk a waxtaanal porte parole gouvernement bi tey muy Moustapha Sarré këram a ngi fii mbaaw wallahi Azim dama fa doon dem ba këram ma toog waxtaan ceeg moom xamal ko nag nag lu bëgg liggéeyal parti bi lu bëgg a def waaw lu bëgg a def dara ci parti bi laa mu gëm mu nangu mu rafetlu ko woo ñi mu xam ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ma jiitu ci parti bi te nekk Jurbel wax leen ne leen kii idée bi mu am idée bu naaj la rafetlu naa ko jàppale leen ko te dina ñëw Jurbel ngeen ànd liggéey mbay man su ma neexoon wallaay azim bépp patriote fu ñu lay dégg ñu ma fay dégg ñu may kii ëpp ñu ma moyen bi ëpp ñu ma pour ñu mën ma gis mais mbay ñun dan daa am ñun ñu yaree ñun nanu suñ suñ Basiru Cissé moom suñ Mor Mbay Cissé moo nu yar ay taalibe lañ ay dongo lañ dafa am luñ ñu yaree ñun bu wax waree wax jotee danañ wax waaye bu nopp jotee ak liggéey dañ ciy nekk ñun loolu lañ ñu yare moo tax euh, am na ci la nga xamante ne Birame Souleye waa làmb waruñu ko woon attaqué noonu xam lu ñu waroon attaqué kon est-ce que kon Pastef mi indil na projet Euh, làmb ndax ñi gouvernement bi toog ban projet la indil làmb ndax gouvernement bi fi jógee ci dernier moment la indi ay projet ba man mii di wax ak yow bokk naa ci ñi déposé woon ci promoteur yi déposé woon pour ñu financer leen ñu liggéey fay. mais daa mel jotaguñ dara. damay ñaan nag état continuité la loolu lu baax la woon ñee commencé nañ ko seen nguur jeex na état bi fi nekk na ko continuer. parce que nag mbir mi boo bëggee dimbali sénégalais yëpp ci pàcc yëpp ngay laal làmb ñi ci nekk ñàkk fayda bàyyiwu leen ci ñàkk jom bàyyiwu leen ci day suñu aada ak suñu cosaan ñu juddu fekk suñuy bàyyi ak sunuy maam di ko def ñun jàpp nañ ne à de làmb amul lu gën a fort làmb Sénégal football dañ koo jéggaani ñun làmb lañ moomal suñu bopp ñun làmb mban mbay sport yëpp mën naa am du ko seetaan yëpp mën naa am nag du jël sama temps mais làmb mun mënuma koo ñàkk seetaan kon am na ci la nga xamante ne dañu ko mooñaale man mii di merci man mii di patriote bi gëm projet bi gëm Ousmane Sonko gëm Basirou président Basirou Diomaye Faye mi fi nekk nga ne ma tey ji nga bàyyi làmb wala tey ma tuuwal làmb wala ma tuutal ko ah lu ma bëgg-bëgg nag ah, projet bi nag bëgg-bëgg président Ousmane Sonko it ah wax dëgg yàlla du ma ci ànd léegi ba léegi yaa ngi yëngu ci li nga xamante ne bii moom mooy tëgg la su ma juumul après tabaski da ngay tëggaat laa bu fële ci Diourbel da ngay delloo buum ca boy boy ga tuddee ko Ousmane Sonko wala da ngay changé carte gi. déedéet yàlla tere ñu changé carte gi ci kàttanu yàlla incha allah troisième édition président Ousmane Sonko di premier ministre du Sénégal ndax boo déggee maanaam président Ousmane Sonko mooy président parti bi ba léegi kon loolu du deñ ñun président parti bi ba léegi dañ koy jox cër duñu ko mës a saarloo mais premier ministre lañu war di wax waaye mais comme ñun dañu tàmmaloon ñuy wax prési pro yooyu dañ koy continuer troisième édition lendemain tabaski ci kàttanu yàlla incha allah yàlla mënu fi bàyyi ñun ñëpp mbay dañ koy yeesalaat delloo muy ca bopp. xanaa yoon boobu nan ko daan defee dinañ ko def bañ koy def la gën a métti. moment yi dañu daan proposé xaalis nañu dindi leen làmb ji ngeen tëgg dindi leen ci turu Ousmane Sonko. kon jamono jamono bi ngay tuddee Ousmane Sonko làmb am na politiciens yu doon ñëw naan la dindil turu Ousmane Sonko bi ñu jox la xaalis. Eh, du ma fen ah su may mag ñu ngi Jurbel Modou Fall Mathias maa ngi koy nuyu président ay euh, vice président ay ASC Pape Diouf maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax moom ci boppam. ay nit ñëw nañ ci moom ñu tuddee leen yeneen drapeaux parce que làmb mënoo yem ci benn parti ñoom ñu ne ñoom mën nañu génne xaalis bu weex ñu génn ci turu président Ousmane Sonko ñoom ñu ñëw wax ma ko man leen billaahi wallaahi dee wuute ko moo ma ko gënal. te loolu tëggoo ko woon pour am ci xaalis. te loolu moom may dama ko tëggoon pour am pour am ci xaalis d'accord mais xaalis dafa am lu ko jiitu mbay. mu ngor man booba jëm naa ni kii ñu àndal gor la. giir la te fii ñu toll nii lan ko mën a jàppalee bu bu ëllëgee duñ sëgg dun rus mbay man loolu laa gëmoon mais tey jii mbay su fekkoon ne wan nañ ko ginnaaw bañ ko tuddee drapeau bañ a jàpp ci ay mbiram waa mbay ndax dëgg yàlla tey jii ndax fii ñu yegg si nii danañ fa yegg si duñ fa yegg si duñ fa yegg moo tax ñun nag ñu amoon ngëm-ngëm boobu te dañ koy continuer président Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal sama vidéo bi yàlla na ci jot su ko yëgee dañ ko koy tuddee su ko yégul dañ ko koy tuddee. ndax ba mu gën a ba mu demee ba mu gënee lañ ko doon def yaa ngi dégg deux mille vingt deux mille Covid bi la deux mille dix neuf lañ commencé. Covid bi ñëw tëj ñu deux mille vingt et un métti lool ñu tëgg ko. deux mille vingt deux xam nga deux mille vingt trois lu tax tëgguñu ko président Ousmane Sonko moo nekk ci biir caabi féete ko ginnaaw man leen sama ngor mayuma may tëgg làmb président Ousmane Sonko nekk ci biir. kon kon année boobu noonu tëggoo làmb. tëgguma làmb damaa toog mbay kon kookoo dee man pro bu ma ko daan déglu discours am su ko dégloo ba pare sama soxna mu may dégg maam jaaral mu may dégg xam na li may wax su ma ko dégloo ba pare ronko ñi damay wër ci guddi gi bu mësaa def discours laa la wax de moment bi xat-xat yi am la bu mësaa def discours ba ma ñëw woon tër si heure boobu laa koy déglu su ma ko dégloo ba mu def discours ba pare faw ma wàccee ay xéewal ba pare soxna si jox ma ndox ma dal doog a continuer tëdd ndax damaa xam li mu doon wax ñun sénégalais yi nan lañ ci mën a jëriñoo ëllëg damaa xam ni kii wallaahi Sénégal bu ci jotee dana changé man dama ko gisoon ma xam ko loolu moo waraloon mbay sama sonn gii ngay gis ma sonnoon ko ci parti bi pour ngir yàlla parti bi yegg si ba parti bi yegg see pouvoir ba léegi damaa toog jàpp sama njàmbur ñu bëri déggatuñ ma même groupe whatsapp yi ma bokkoon mbay bokk naa lu ma dix groupe whatsapp Pastef diaspora bi ak fii Sénégal ak sama commune Diourbel sama département beeg yëpp mais damaa toog jàpp sama njàmbur gars yi dañ may wax lu tax bu waxatoo waxatoo nangam déedéet man dama gëm ne ñun accédé nañ pouvoir li des mooy ñu jàppale gouvernement bi mu liggéey niñ koy jàppale ñun ñoo ko mën a jàppale mooy ñun ku nekk ca lam ne woon nga dellu ca fexe développé nag même bu dee benn nit boo mën a dimbali nga dimbali ko te yàlla tax bërki démb def naa benn vidéo bu may ñëw jóge Espagne benn booy ba nga xamante ni yàlla xam na ni Mansour maa ngi koy nuyu à passage xaw ko woon mais bu mu génnee prison nekk chauffeuru camion expliqué kaab ne xam ne moom chauffeuru camion la mais camion dafa bëgg Ousmane Sonko tafoon ci photo taxaw fii ci VDN bi oto bi paan mu ciy def ndox ñu fekk ko fa ko yóbbu ko tëj ko neuf mois ci loolu kese borom oto bi mer ne ko yow da nga ma kon da doon manifester te ku doon manifester dina du wàcc yor caabi ot camion di ci def ndox foofu lañ ko fekk taxañ yóbbu dóor ko dóor yu metti neuf mois mu tëdd fii tëdd Thiès bi mu bi mu bi ma yégee loolu mbay jour bi ma ko bi mu koy wax interview dama doon jooy bi may jugee Rose amaguma dara mais bi may ñëw dama ko woo ñu daje pour mu dawalal ma rek ma mën ko fay dara te yàlla xam na ni bu ma yàlla dimbale dinaa ko wutal oto bu mu dawal moo jëmm jooju chauffeur camion la ñun ci camion la ñuy yëngutu ci bagage yi la ñuy yëngu dinaa ko wutal oto bu am ne nii au moins que dana ci jàpp di liggéey ñun noonu lañ mën a dimbalee gouvernement bi fi nekk. parce que ñun yàlla dogal nañu sunu sunu eh, yàlla mayu ñu am njàng bu ñu nekkee fee mais may nañu am xel bu ñu liggéeyee waaw may nañu kàttan bu ñu liggéeyee ñu ngi dem ak a ñëw kon ci loolu la ñuy nekk.